waaw guuk ak Pa Moussa guuk ak desan, Moussa ndeysaan Pa Moussa bari ñu guuk guuk guuk njeejeng Doudou Basse Gouye Gui ñaari combat yaa

waaw Moussa Daf ndeysaan ah waaw guug bugi buga sempe guug ra buga sempe Pa Moussa jere fofu ko jejen wala support bu bari ñak wa jejen jilor jejen dana aussi ref compagnie bu gi jilas am ko ya ya ya ya Moussa Bargny ndeysaan combat bi métti na combat bi métti na ndeysaan diggante Gougue bu ak Pa Moussa Gougue bu jeejang bi ak euh, borom Bargny bi Pa Moussa Bargny Gougue combat bi bii dina ndeysaan ku nekk am na ñaari dara amagul Mame Moussa jël na ko kuk bañ jël na ko kuk bañ a Mame Moussa takk na ko Mame Moussa takk na doxul jëm ay sama gars yi Malta combat bi xaw naa metti nag waaye Diassy Peulh jël na ko takk na ko takk na ko Malta jël na ko eh Diassy Peulh daan na Malta Diassy Peulh daan na Malta eh waay waaw Doudou Sané Boyar Moussa Kaling Doudou Sané Kaling ndeysaan des fois ba dara si man ñaari ñaari poids lourd lañ ndeysaan ba dara si man CFA ba dara si man CFA fii ci Djilor waaw waaw Soye Fa mu ngi forcé Badara fàq na ko eh combat bi neex na waay eh eh combat boobu combat bi nar naa neex waay Soye Fa jël na ko Badara bañ na Soye Fa jël na ko Soye Fa jël na ko Soye Fa jël na ko eh waay eh lamb lamboon naa la diya fii ci Djilor la xee.

combat Diassy Peulh waaye ma teg combat Diassy Peulh kon tegal combat Diassy Peulh defe naa ne mooy Diassy Peulh mooy daan waaw mooy daan combat daan na dina mën dara waaw waaw waaw Moussa Gouloup Gandia Fama ñu ngi xoolante Gandia Fama ak Babou Sagne ko xooloon te kenn deful dara kenn puusul kenn paasul waaw Thank you. waaw jaasi pël lay boyaar jaasi jaasi pël ak lay boyaar Gandia Fama Pa Moussa Bargny ndeysaan ñu ngi xoolante eehe lay boyaar jël na jaasi pël daan na ko jaasi pël daan na lay boyaar Gandia Fama Pa Moussa eehe Aja final kuali raw gadu Aja final raw gadu baa ngi noonu Babou Rako Ngor Mbine motor, ak double motor double la raw gadu moom ngeen am noonu ndeysaan fii ci Djilor waaw ah, double moteur Babou Babou Rako Ngor Binta bi ndeysaan waaw waaw ak doomu Biriju Wala bi ndeysaan moom double moteur eh Babou jël na ko double moteur daan na Babou double moteur daan na ko tribunal bu Wane Ndiaye fii ci Djilor lay xeex waaw waaw walla ma njiraandeelu yeeg yeke waagee jëg yeke waagee jëg ndeysaan lii lamb rek la mun a doon waaye combat bi métti na Moussa Karim Cheikh Karim jël na ko waaye combat bi neex na

président ndeysaan foofu ci Sénégal yaa si bal Pa Moussa waaw ndeysaan xajale ndey fatu nan li yakka kanu nanan foofu belelum ndeysaan jaasi pël Pa Moussa Bargny Pa Moussa Bargny jaasi pël ndeysaan waaw waaw fii si Djilor Djilor a ngi xaj ñaar Sitor ndeysaan Sitor Djilor mu ngi toj lamb bi léegi à domicile ndeysaan di yëngal ambiance avec Sitor jaasi pël Pa Moussa Bargny Pa Moussa Bargny jël na ko eh, eh. Mame Moussa Bargny daan na Jaasi Pël acca ah, sama gaay demi-finale baa ngi noonu Moussa Kaling Gouy demi-finale fii ci Djilor di jag grand bu poids léger yi ay waay daanu ndeysaan ñaari lañ waaw di siyaare Jilaas ndeysaan di bëgge waa Mar Fafako di siyaare ndeysaan kullu guddu gu si Kajoor rawatina champion yi nekk foofu waaw ñi nga xam ne ndeysaan ay ancien gloire lañ mu mel ni Matar Senghor Moustapha Samb Boy Dollar bëgg naa leen ndeysaan ah waaw waaw de même comme pour TV kooku la woon waaye di bëgg champion yi nekk si war bi les à l'instant ku mel ni Doudou Sané Ibou Ndiaye Diop yor Babou Sarr Mame Fadé ndeysaan ñaa ngi si biir ana jawrin waaw final ba imposé waaye Moussa Kaling champion la cay lambu waaw waaw gars yi ne teg ne saan di leen déglu ñaar kese ci biir géew bi bu juum da daanu daal bu juum di nga daanu ndeysaan guy gi guy gi dàq na ko ndeysaan ey am na avertissement Moussa Kaling am na avertissement cay demi final bi neex na Mame Moussa Bargny moo di xaar final cay lambo naa la diya fii ci Djilor waay ehe eh, temps bi jeex na bëre leen Moussa Kaling ndeysaan yaa am defal dara mu ngi imposé Moussa bu ko bu ko bu Moussa Kaly Gouy Gui daan na ko final poids léger li ci Djilor lay xewee Gouy Gui Djilor Pa Moussa Bargny le 8 janvier 2023 fii ci Djilor ndeysaan final poids léger arbitre sifflé na arbitre sifflé na arbitre sifflé na diggante Pa Moussa Bargny ndeysaan Gouy Gui Djilass ñu ngi xoolante ndeysaan ku ne di teg ndeysaan di xool sa morom eh bi lamb waay final bi ndeysaan ñaari ndaanan lañ ndeysaan kii dëkk ba Bargny ndeysaan kii dëkk ndeysaan ba Djilass eh, eh. ndeysaan di bëgge waa Djilass di siyaare waa Bargny ndeysaan di bëgge ndeysaan waa arrondissement a ngi si mal ñoo ngi leen di bëgge waaw waaw final final point yaram waaw Moussa Bargny Gouye Gui si poids Pa Moussa moo ko waaye Gouye Gui ndaanaan la 굴기 내가 알고 계시네